très chers internautes de Sans Limites TV ñi ngi ak koo xam ne ni itam Sénégal ràññee nañ ko lool xar kanamam euh, depuis ñu euh, xeex li nga xam ne moom mooy bi le projet pour mu taxaw à chaque fois ñu ngi ko gis di Khoureyssi Thiam euh, Khoureyssi Thiam plutôt <laughs> ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay mbokki Sénégal maa ngi fay mbokki Sans Limites di rafetlu seen taxawaay di rafetlu seen liggéey e di leen jaajëfe bu baax a baax di leen encourager. te li ma ci gën a neex mooy sans limite li si ëpp c'est la jeunesse donc ça veut dire que vous tendez la main à ces yi nga xamante ne ñoom le système bi fàtte muy la jeunesse te ñoom ñoo yor lii nga xam ne mooy développement wu réew donc maa ngi leen di remercier di remercier seen i ay njiit ak seen i kilifa di leen. yaa ngi woon yaa ngi woon ci biir euh, euh, dégg nga euh, yi nga xam ne teg nañu ko di bile projet pour Sénégal gi lan moo la ci gën a frappé boo ci mënee dikkaat. man moom honnêtement parce que projet bi dama see liggéey parce que dama bokk moom cap donc si mouvement des cadres bi donc liggéey naa si lu bare bare bare surtout nag si côté bi nga xam mooy côté sport bi mais am na yeneen fànn yoo xamante ne liggéey naa si jàppale naa si yeneen nit mais euh, li ma si gën a neex honnêtement mooy six mois yi nga xamante ne moom la ñuy jox les femmes parce que dañu nekk si moment boo xamante ne dañuy sargal jigéen te la femme moom mooy li nga xamante ne moom mooy symbole dund parce que mooy joxe dund si moom la dund di jàll donc ñu nekk si mois boo xamante ne dañuy sargal femme ñun waa Pastef ñun waa Jomaay euh, président coalition ñu génnee benn programme boo xamante ne mën naa ni faar guléet muy programme boo xamante ne sénégalais bépp bu nekk si fànn bu ne di nga ci gis sa bopp ci niveau bu ne muy indi ay valeur yoo xamante ne Sénégal da ko amoon mu réer ñu siwaat ko waaye it ñu ubbi opportunité li nga xamante ne mooy jigéen ñi parce que si la société mondial jigéen xaw na si un peu euh, laisser aller bàyyi nañ ko tuuti ginnaaw mu baax nag ñu dimbali jigéen ñi parce que jigéen baax na góor baax na donc six mois de maternité congé yooyu ñuy jox jigéen ñi ak appui yi nga xamante ne sur niveau euh, santé bi ni indi ay réformes mais surtout encore abri provisoire yi boo xoolee tamit parce que boo xool si abri provisoire yi éducation mooy base du développement soo investir si sa éducation ça va être pour être développé soo investir si sa santé ça va être pour nga acter ce développement parce que il faut un esprit sain dans un corps sain et pour que cet esprit et ce corps mu mu moom mu boobu il faut mu am ay médecins yoo xamante ne ñu ngi à côté accompagner population bi si ay jumtukaay yoo xamante ne jumtukaay yu am solo la pour que ñu mën a am askan bu wér pour mën a développer seen réew ci kaw loolu tamit am na beneen pàcc bu am importance mooy la justice séparation de pouvoir ak réforme bi nga xamante ne on va changer le premier ministre à un vice-président avec le partage de plus ou moins des pouvoirs donc loolu dafay équilibrer encore la justice parce que pour en développement foog citoyen bu nekk gis ci boppam mais tamit du parce que doomu buur nga wala buur nga boo tooñee yoon waru dal sa kaw te loolu daf fi war a jeex. am xaalisu boppam. waaw ah, xam nga xaalis moom dafa nekk loo xam da nga koy liggéey te boo xoolee ponc yi ñuy wax li gën a important mooy agriculture parce que boo defee agriculture rek automatiquement dafay indi industrialisation parce que nga am agriculture. produits yi nga foog nga xalaat à la transformation de ces produits là et d'où aujourd'hui tu crées quoi tu crées des emplois emploi boobu xaalis boobu ñuy liggéey dañ koy delloo siwaat si askan wi mais tey am nañu or am nañu zircon am nañu gaz am nañu pétrole on a des êtres humains et des jeunes qui sont forts et qui sont ambitieux liggéey xaalis bi warut a jafe xam lan la soxla volonté et je pense que avec l'équipe jomaay président avec le programme PASTEF, la volonté va renaître parce que y a des Sénégalais qui veulent, qui veulent développer leur pays, qui sont issus de la euh, nation, ici par exemple, qui sont issus du Sénégal par exemple, mais aussi qui sont issus de la diaspora, c'est ce que je voulais dire. campagne bi tey lay ubbi président Diomaye ba léegi mi ngi ci kaso bi njortu ngi ne tey dina génn avant ngeen di démarrer. mais ñun ñëpp ñu ngi ci kaso ñi nekk à ciel couvert ñi nekk à ciel découvert. te gëm naa ni c'est un honneur aujourd'hui euh, ñuy rafetluwaat encore une fois di magnifier waat encore une fois la personne ki nga xamante ne mooy le président Ousmane Sonko de par sa générosité de par aussi l'exemple et le parallélisme par rapport au projet qui nous a vendu aujourd'hui ba tey ji indi suñu engagement ci li nga xamante ne mooy développement Sénégal mais dafa rafet tey nga nekk candidat nga am sa liberté d'expression nga mën a exprimer wu parce que c'est le rendez-vous d'un avec son peuple donc aujourd'hui donner l'opportunité à, à notre candidat ki nga xamante mooy le Bassirou Diomaye Faye mu am l'opportunité mu mën a dem saafonte ak askanam saafonte ak ay nitam saafonte ak waa dëkkam dafa war a nekk lu ñu war a rafetlu mais aujourd'hui encore une fois la démocratie sénégal sénégalaise dafa amaat gàkk-gàkk ci li nga xamante ne rafetluwuñ ko mooy détenu politique yu bari yi nekkoon ci kaso bi ñu ko doon weddi ci ay at yu baree bare tey le temps nous a donné raison nangu nañ ko waaye bëggoon nañ ñu gaaw ci lii nga xamante ne mooy génnee leen parce que seen famille namm nañ leen askan bi namm nañu leen waaye it Sénégal soxla na leen parce que je pense que la place de ces hommes qui sont en prison aujourd'hui emprisonnés injustement c'est pas dans les prisons c'est dans la société pour reconstruire un Sénégal nouveau et changer ce système pourri qui nous a abrutis depuis des années et des années et qui nous des vampires doyal nañ si te tey soxla nañ suñu ay doom ku mel ni président Ousmane Sonko soxla nañ suñu doom bu mel ni Bassirou Diomaye fay soxla nañ suñu doom yi nga xamante ne dañoo xeex pour seen askan ñu tëj leen injustement soxlawaat nañ leen parce que sa Sénégal la doit se développer doit changer mais avec les Sénégalais. gouvernement bu bees foofu la ñuy joxe euh, ministre de l'intérieur bu bees sénégalais yi ñu bëri nag jaaxle nañu ndax la ñuy wax naan moom mooy ministre de l'intérieur dafa jege lool président Amadou Ba tiitaange wala. waaye tiitaange amul. ku wóolu yàlla doo tiit mën nga am nag xalaat parce que nit lañu ñu ñëpp ay nit lañ mën nañu xalaat mais li am solo mooy nañu def lu ñu war ñun en tant que citoyen d'abord mooy nañ dem jëli suñu carte électeur loolu mooy number one suñu defee loolu ba pare nañu assuré wu que kenn ku ci nekk ci euh, seize wala dix dix neuf candidats yi nga xamante ne dañuy dem jongante ñu assuré que ni dinañ sécuriser le vote mooy lan am ay mandataires yu doy am ay suppléants yu doy yoo xamante ne ay mandataires ak suppléants yoo xam ne on les a bien formés man li may wax ça nous concerne nous la coalition Diomaye et que ñu assurer que de telle sorte que dans chaque centre de vote il y aura la sécurité qui va permettre aux Sénégalais d'avoir l'information à temps réel et à temps rapide pour que mu bañ a am un hold-up parce que ce hold-up là buñ ko réfuter on a tout pour gagner mais on a tout pour perdre il faut pas être il faut pas naagu mais nañ ci doxal liggéey bi ñu ñaan yàlla mu def jàmm ci Sénégal waaye kii di ministre bi nga xamante ne mooy Matar Cissé ñu ne ko dalal jàmm parce que tamit à la fin de la journée c'est un Sénégalais et il est le ministre qui a été choisi pour les élections yàlla na yàlla seetal xelam yàlla na yàlla indi njub ak jubal ci xelam mu xam ne askanu Sénégal lay taxawal du benn nit du benn parti mais askanu Sénégal ndax ci la bokk ñu teg ko ci yoon et que le meilleur gagne et que ce meilleur là yàlla na nekk Diomaye Faye pour que ñu change ce Sénégal là avec le programme Pastef incha allah avec le président Ousmane Sonko merci à vous.